baa yàlla nag mooy koo xam ne goreel nga ko gannaaw ga wa minum bokk na ci ñoom jaam yooyu mooy fadaalatun moom la wax ne fadaalatun ak fadaala rafin ak rafin wa sinwu ak mbokk ma kirkiratun kirkira bi kasi yi ci kasara ñaari kaafi chamxuunun ak chamxuun bi mun ajimin ci xëyn guñ tomb ga ak shin ga chamxuun shin ga dafa am ñetti tomb xëyn ga am ñetti tomb moom wute nañ ci turam fa daaratu la njëkk a tudd ci bayti boobu mbaa yàlla yonentu la woon sallallahu alayhi wa sallam ci leetar bi nga xam ne dégg nga euh, abu bakrin muhammad bin amr ibn hazmin bind na ko omar ibn abdul aziz Omar ibnu Abdul Aziz ci jamonoom daf laan toppatoo ñi nga xam ne ñoo daan liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa ci góor ak jigéen ak jaam yi nga xam ne yonentu amoon na leen sallallahu alayhi wa sallam ñu ko doon liggéeyal ndax mu mën leen a mën a dimbale ñu bokk ci ñooñu ñoom ku defal yonentu teraanga sallallahu alayhi wa sallam lu mu gàtt gàtt rek suñu la gis danañ la teral danañ la dimbale <coughs> ci la Omar nag daal di bind leetar ibnu xasmi moom mu lay wax na ko gëstul ma turi ñi nga xam ne ni ñu doon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu góor ñu jigéen ñi yi xam ne yonent amoon na ko ibnu xasmi bind ko leetar nag wax ko tur ya ne ko fa daalatu mbaa yàlla la woon ñeel yonent bi sallallahu waaye man la woon gannaaw ga Sham la mujj dem waaw nettali ko daal mbiri fa daal ci lépp sallallahu alayhi moo tax ñu ne ci mbaayal yonent bi la bokkoon raafion ak raafion ci mbaayal yonent bi la bokkoon ñu ne raafion abu raafion ñu naan bahi dégg nga nee nañ benn waay bu ñuy wax abu waxi xata Saïd ibn Aas mu mag ma moo ko moomoon ba mu génnee àddina ay doomam daal di ko doon moom euh, Raafi' moomu doomi Saïd moomu ñoo ko doon gannaaw ga kon Saïd ibn Aas moomu wala wax moo ko moomoon mu génne àddina doomam yi doon ko am ñetti doom ci ñoom ñu goreel seen wàll ne ñun lañ ci am goreel nañ ko jaam nag buñ goreelee lenn ci moom léegi dañuy xool bisam ñu bu dee genn wàll ga lañ goreel genn wàll ga des benn bis moom moo ko moom bisam la foofu gor la lu ko ne am mu def waaye nag bis bi ci topp kooku jaam la dafa koy liggéeyal sa ngam noonu la lañ koy xoolee ñett ñooñu goreel ko keroog xare Badar ci lañ génn àddina ñoom ñëpp sallallahu alayhi moom it demoon na ci xare ba moom Raafi moom wala boo Raafi gannaaw ga ci la xool li des ci moom ci njaam mu jënd ko ci doomi Saïd moomu maanaam mu xool daal sangam ya ko ya moom léegi eh, lañ moom ci moom mu jënd ko ba mu des cëru Xaalid bun Saïd Xaalid moom <coughs> dégg nga jëndul bosam daal kon xam na ba léegi lu des ci moom ci njaam waaye bëreetul nag ndax doom yaa ko moomoon ñett ju goreel nañ ko ñooñu génn àdduna ña ña goreelu toon mu jënd lam moom ci ñoom lañ moom mu des cëru Xaalid bun Saïd Xaalid moom moo may cëram yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko la moom moom ci waaw rafet mi wala abu rafet may naa la ko yonentu daal di ko nangu ba ko jëlee daal di ko goreel moo tax rafet daf laa wax ne man baa yàlla yonentu laa sallallahu alayhi wa sallam ana mawla li yonentu moom ci moom noonu goreel ko tax mu génn si njaam ba set tax mu ne man maay baa yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomam it lañ daan wax ne seen bàyyi mbaa yàlla yonentu la sallallahu alayhi wa sallam mbokk ma kirkiratun kirkira kirkiratu kooku ci mbaayal yonent bi la bokkoon sallallahu alayhi wa sallam moom histoire net niroo nag loolu histoire mi ci xare daal lañ ko reyee ñëpp ne ma nga aljana yonent ne ma nga safara ndax dafa am lu mu jël ci màng ma mooy alal ji ñu dajale séddalee guñ ko am na lu ñu ci làq loolu ko dugal sawara mi daam it xam ngeen ne keroog bañ jugee xaybar di dellu si dañ ko jam fett mu dee ñu ne ah, ah, sahid na yonent ne mukk ma nga sawara ndax waaw lam jëloon ca màngama <laughs> nettal nañ daal lu mel noonu ci kir kira nettal nañ ko ci midaxam ndax dañoo jaawale ñaari histoire yi waaye kenn la wala ñaari histoire yu bokkul la kooku yàlla xam waaye nettal nañ loolu loolu ci ñoom ñaar ñëpp kir kiratu mbaa yàlla yonent loon moo nekkoon ci bagage yonent bi sallallahu alayhi wa di ko toppatoo ci lenn ci xare yi maanaam am na xare yoo xam ne moo nekkoon ci bagage yu Yonent bi doon ko toppatoo sallallahu alayhi wa sallam Ibnu Hazm moo la wax léegi ne la moo doon bind mbaa yàlla Yonent bi pour jox ko Omar ibnu Abdul Aziz andi wàll na kirkira moomu sallallahu alayhi wa sallam kirkira wax naa ne la ba mu génnee àdduna nit ñi dañ ne ma nga aljana Yonent ne ma nga sawara ndax ab yére bu mu laq ci màng mi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajale woon na ko loolu nag lu raglu la ndax xam nga ne liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala xëyal ko dara mel ni moom nit mënul màgg-màgg ba xam lu gën toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn digg ndax saxaaba buñ koy wax du mooy ku jaamu yàlla lu bëri waaye mooy lan mooy ku toog ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi loolu rek moo leen may garaatu saxaaba ba ban lañ ci jëlee garaat bañ ci jëlee mooy boo liggéeyaloon boo jaamoon yàlla lu toll ni doju Uhud nga joxe ko ci alal ah, wurus nag laa wax nga am ci wurus lu toll ni doju Uhud joxe ko jotoo seen genn wàll liibar bu joxe loolu la toog ak yonentu di maye ñi nag waxuma toog ak yonentu waaye dañoo dëkk ak moom amuñ foofu liggéeyal ko amuñ foofu ñu dugg ci lislaam yemuñ foofu ñu teewee xare yi sàcc man leen dugal sawara sàcc kon na koy boo góorgóorlu safinatu mbaa yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaynde ga da koo rus ñemewut koo mbugal ñemewut ko laal comme niñ ko jànge woon ndax lan ndax nekk ki mu nekk ak yonentu sallallahu alayhi wa ko rusee xam nga ne garaat boobu rëy na ku dem nag ba am garaat boobu sàcc mën laa dugal sawara ah ku dul yow a moytu nag moo tax ne diw daal mucc naa wala taalib diw daal mucc kooku wóorul de li daal mooy diw lam la tegtal nga di ko def ndax àndoo lay tekki nag ngay ànd lu baax mu aay lu bon nga nekk ci nga ne yaa ngi moom a ànd xam nga ne yow kay iblis nga ànd ak nga ànd ak waaye daal àndoo lay tekk mi daam kirkira ñoom ñoom nett nañ loolu sallallahu alayhi wa moo kii kii nag la wax ne bi kasri kaafe yi da ngay kasra ñaari kaafe ya chamxuunun ak chamxuun bi mun ajimin ci dégg euh, tomb gi maanaam xëyin gi dañ koo tomb chamxuun kooku dañoo wutee ci turam dafa am ñu ne chin gi yëpp dañ leen a tomb kon kon bi mun ajimatee ni bi mun bi moo jëmatee ni lay doon ñaari yëpp lañ tomb mooy siin gi ak xayin gi muy chamxuun siin gu tooy la ak xayin ñu ne déedéet bi muhammada tey ni la siin gi kenn tomb ko ayin la nekkul xayin to kenn tombul ko kon samuun ngay wax samuun ñu ne samuun la ñu ne chamxuun ko wutee nañ ci ñu ne déedéet siin ga kese lañ tomb waaye ayin ga moom tombuñ ko mooy chamuun loolu wax nañ ko ñu ne déedéet xëy nga kese lañ tomb waaye sin nga moom euh, dégg nga tombuñ ko waa dégg nga euh, de bubaal mi doon samxuun kon wute nañ ci turam sallallahu alayhi wa koy jàngee lu mën a xew daal mbaa yàlla yonum tuloon sallallahu alayhi wa sallam mooy samxuun bun zayd ñu koy dàkkante ne abu rayxaanata mbaa yàlla yonum tuloon sallallahu alayhi wa ñi ne Abdoulaye la tudd Nadr dégg nga waaye tudd Samwun bun Zayd wute nañ daal ci turam fekkee na ubbi Dimashqa dem Misra mujj dëkk na dëkk Maqdis mbaa yàlla yonentu ku mënoon a jaamu yàlla la alayhi wa sallam bis jot na mu ànd ak yonentu ci xare ñu toog guddi gu sedd yonentu ne ana ku ñuy garde ci guddi gi ma ñaanal ko ñaan goo xam ne ni dana ko topp ba ci ay ngirtam benn waaye ci ren saar ne man maa lay garde yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko lu baax sam xun ne mënit ma jug ne ko man ak manit mu ne mu ñaanal ma gaaw waaye lam ñaanal waajee mu ëpp la ma ñaanal ndax kooku ko jiitu ci mbaax gi yonentu ne yàlla xaraamal na safara ci bépp bët boo xam ne nii dafa garde ci yoonu yàlla kon ñooñu jugoon doon ko garde doon garde yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu sax ci nañ ci safara kon bu dul ñaan giir tiyaaba gam ci amee doy na wax nañ ne samxun moom mos naa jógee ci xare ba mu ñëwee daal di reer sonn lool xam nga ne ku jógee ci xare dangay ngay sonn mu ñëw rek daal di reer daal di jàpp ayoo jubali jàkk ja nag di jàng dañu foofu di jàng di jàng ba suba ba noddu suba jot guddi gi yëpp ma ngi koy jàng boromam ba mu ñëwee soxnaam ci ne ko yow yaa ngi jugee ci xale kenn gisul la nga ñëw ma yaakaar ne eh, dégg nga fi ngay fanaan nga demante si jàkk ja ñun lan lañ xam ci yow kon xanaa amuñ ci yow benn àq <laughs> ku sama xool jaamu ko te yàlla la woon ci mbaa yàlla yonent bi la bokkoon sallallahu alayhi wa mu ne abu muwayhiba ak abu muwayhiba kooku mbaa yàlla yonent la woon sallallahu alayhi wa sallam yonent daf koo jënd daal di ko goreel moom nag kenn xamut turam dàkkantaram rek lañ xam muy abu muwayhiba fekkee na xale mu rëy si daa ba gi nga xam ne nii moom la ndey ay sutu waroon radiyallahu anhu moom moo ko doon xommat ci wuyu ko mbaa yàlla googu moo ko yore woon moo doon mbaa yàlla yonentu doon moo doon gardé daabaab yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi daabaab ndey kon laa bëgg wax yal na ko yàlla gërëm ci xare boobu sallallahu alayhi wa sallam nettal na ci yonent bi ne dafa ànd ak yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis ñu dem Baqi ne Baqi fa lañ denc <laughs> ñu doon génn ci Medina yonent bi daal di taxaw ci bàmmeel ba daal di leen ñaanal yàlla ñaanal leen njëggal daal di leen ndokkeel ne leen maa leen ndokkeel ci xaal bi ngeen nekkee wuteeg xaal bi nit ñi nekkee ay fitnaa ngi ñëw yoo xam ne benn bu nekk dafay mel ni guddi gu lëndëm maanaam fitna boo xam ne borom xel sax dafay gërëm du xamante lu def ndax musiba gu bëri ga ca nekk fitna yi nag yonent ne dafay toppalante waaye bu mujj ñëw rek mooy gën a bon gën a métti bu jiitu kon yéen ñi nga xam ne génn ngeen àdduna mucc ci fitna yooyu maa ngi leen di ndokkeel ndeysaan xadis boobu abu muwahiba moo ko nettali ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ma ngay ndokkeel ñi génn àdduna ne leen ndokkeel naa xaal bi ngeen nekk daal ak xaal bi nit ñi nekkee wutee kon ñun ñu ngi leen di ndokkeel ndax ay fitnaa ngi dikk yoo xam ne nii dañoo mel ni guddi gu lëndëm tërës maanaam fitna yu méttee métti yoo xam ne génn ci yombul dañoo toppalante te bu mujj ñëw rek gën a métti bi ko jiitu kon nag maa ndokkeel ci xaal bi ngeen nekkee moo tax jamono tey ku ci dund ne léegi-léegi nga war a ñee sax ñu génn àdduna ndax ñoom lu mën a kew ñu ngi ci xaal boo xam ne kiiraa yëpp dog na lépp lu leen yonent waxoon sallallahu alayhi wa sallam moom am gëm yàlla gu sell waaye te ñu ngi ci jamono joo xam ne nit mën naa xëy di jullit gont di xeeféer wala mu gont di jullit xëy di xeeféer ndax lu yàq gëm yàlla doomu aadama yi ak lu leen sànq dafa bëri lool yonent mu abu muwahiba yàlla tànn loo ma ne bu la neexee nga dund ba bis penc nga xam doo dee ba mukk jamono ju ñëw rek nga ànd ak ñoom ndax yaay yonent mu jëkk jamono xewal yépp ma daal di ko jox may la teraange àddina te boo dee ma dugal la aljana walla bu la neexee ma rey léegi nag nga dajeeg yàlla benn yoon daal di dugg aljana yonentu ne yàlla daf koo tànnloo benn ci ñaar yooyu mooy ba ko fi muy continuer ba ilaa yawmi diini ku ñëw rek dee ba ko fi mu dund xeet bi yëpp ba pare am dund bu neex yàlla ray ko dugal ko aljana wala boog yàlla yóbbu ko léegi ci jamono jooju mu daal di dugg aljana benn yoon mu ne ma tànn dajeeg sama borom kon moom ba muy génne àddina sax yàlla ko tànnaloo bu la neexee ma yóbbu la bu la neexee ma bara fi mu tànn nag yàlla yóbbu ko sallallahu alayhi wa sallam loolu abu muwayhiba la ko yonentu nettali mu ne gannaaw ba mu waxee wax jooju juróom-ñaari fan la dundaat wala juróom-ñetti fan daal di wuyu ji boromam sallallahu alayhi wa sallam kooku mbaa yàlla yonentu la saadun ak saadu mbaa yàlla yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñi naan ko mbaa yàlla abou bakar ci ñu doon liggéeyal yonent bi sallallahu mooy saadu daan na liggéeyal yonentu yonentu ku kontaan loolu la ci liggéey saadu na na doon saadu liggéey la yonent bi sallallahu dafa rafet rafet goo xam ne tax na saadu kon tax na yonentu kontaan si saadu moomu saadu kon Aboubacar a ko moomoon waaye daf daan liggéeyal yonentu ba yonentu bëgg ci moom ne Aboubacar goreel ko Aboubacar ne ko yonentu man sant rek laa am ci ñi ma liggéeyal ci jaam amatuma keneen yonentu ne ko goreel ko góor ñaa ngi ñëw góor ñaa ngi ñëw maanaam am nañu jàpp ci xare kon goreelal sant sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu ne ko mbaa yàlla yonent bi sallallahu alayhi moo sàkku ci Aboubacar mu goreel ko ak du may retu dumayra mbaa yàlla yonentu la sallallahu alayhi wa sallam dumayra tu doomu abu dumayra mook baayam abu dumayra yëpp mbaa yàlla yonentu ci lañ bokkoon sallallahu alayhi wa sallam dañ ko mos a jàpp ci jamono jaahiliya yonentu daal di ko jënd goreel ko ñeneen ñi na kër ca côté am fa njaboot kooku mbaa la woon nettali nañ ne yonent bi alayhi wa dafa mos a ummu dumayra muy yaayam muy joy mu ne ko looy joy ndaw da ngaa xiif wala da ngaa rafle amatoo yére yow sol mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo teqale sama digganteeg sama diggante doom xam ga moom jaam loon woon jël doom ja jaay ko daal di ko ba mu ne teqale giñ teqale sama diggante sama doom loolu laay jooy yonentu daal di xaaye loolu ne bu kenn teqale diggante waajur ak doomam ñaari eh, jaam daal bu dee yaayam ak doom ja ñan fa na ngeen leen boole jaay wala daal ba baleen fa waaye bu leen leen taqreeti ci la yonent bi yónnee nag waa ci dumayratu mii ñu wax ñu ne déedéet ci baayam la abu dumayra ñaari histoire yi daal niroo nañ mu daal di ñëw mu yónnee ci koko moom ci moom dumayratu daal di ko jënd ba mu ko jëndee daal di bind leetar nag goreel leen ne leetar bii mu ngi jógee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëm ci Abu Dumayra ak waa këram yëpp kon dafa mel ni histoire bi nekkoon ci Dumayra ci baayam la parce que Ummu Dumayra la romboon yonentu daf leen romb ñu teqale diggante yaay ak doom ji mu yërëm leen daal di leen jënd ne leetar bii maa ngi ko jëmale ci Abu Dumayra ak waa këram da ngeen xam ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam goreel na leen xam leen ne yonent bi goreel na leen yéen nag ci arab yi ngeen bokk bu ngeen bëggee ngeen des ak man des ak yonent bi yàlla bu leen neexee ngeen dellu seeni njaboot bu leen kenn def benn lenn lu métti bu leen kenn laal képp ku dajeeg ñoom ci jullit ñi na nga jëflante ak ñoom ci lu baax loolu la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ah loolu defal na leen teraanga ba bis jot na moom mu daal di génn di tukki fekk mu ngi ànd ak leetar bi nga xam ne moom la yonent bindoon sallallahu alayhi wa sallam bandi yi dogaale ko nit noonu naa nekk jullit gaa nekk bandi daal jël lépp loo xam ne yoroon nañ ko bañ jëlee seen bagaas yi bay visite bagage yi ci lañ génn leetar bi jàng muy leetar bi yonent sallallahu alayhi wa ah ñu daal di dabi jël bagage delloo leen ko ndax yonentu dafa waxoon ne ñoom bu leen def dara na ngeen leen baax moo tax bandi yi daal di leen delloo bagage ñoom daal di mucc lu ñu nekk nekk bandi formal la yonentu moom loolu ci barkeeb leetar boobu lañ ko amee sallallahu alayhi wa am na benn sëtëm mooy Xuseyn bun Abdullahi bun Abi Dumayra dafa ñëw ci Mahdi jamono boobu Mahdi moo doon buuru jullit ba mu ba ci Mahdi mu andil ko leetar bi leetar bi nga xamee ne jëlee na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mahdi jàll di jël leetar bi teg ko ci kaw bët ndax kontaan ak màggal ko daal di may Xuseenu ñetti téeméeri dinaar kon leetar boobu defal na leen teraanga ba defal teraanga seeni sët ndax lan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen dénkaane dinañ leen xormaal waaye léegi nag da nga ci jàngee képp koo xam ne yonentu sallallahu alayhi na ko jullit ñi war nañ koo fonk yonentu ba muy génnaat dina dénk nañu waa këram kon képp ko xam ne ci aalu bayti nga bokk boo sonnee ci àdduna jullit ñi sàggan nañ ndax dénkaane bi yonentu nga sallallahu alayhi ci bépp jullit te boo nekkee dénkaane bi yonentu ci jullit ñi jullit ñi war nañ laa fonk bokk na ci dénkaane yonent bi jigéen daan na wax ne maa leen dénk ci jigéen ñi lu baax maanaam na ngeen leen teral na ngeen leen dimbale kon teral leen ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam kooku wéyal dénkaane yonentu la sallallahu alayhi wa sallam ndax dénkoon na ko jullit ñi képp koo xam ne yonentu dénkaane na ko dénkaane na ko daal kooku war nañ koo fonk هذا ينود الإسلام أسلمت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله